benn don bu nga xam ne dafa dem tey ci école yi. na ñu dañu amoon benn CDD ak CLD fii ci niveau de l' arrondissement de Sagata ak le département de Linguère ñu joxoon ñu ay ak beneen circulaire bu nga xam ne jot nañ ko pour que ñu war a jàpp ci école yi. parce que ku ne xam ne euh, école suñu compétence transférée la euh, xam na lu ñu doon ñu bay suñu waar ci bu baax mais xam na tamit lu ñu doon xaar ci mbir mi ba depuis que ba ñu jotee circulaire bi ak léegi. ak CLD bi ak bi dañu taxaw na tey jii ñun suñu école yi bala ñu ko tijji commencé njàng mi bépp matukaay bu nga xam ne rek wax nañu ko da daañu ko def euh, lépp lu nga xam ne mesure bu ñu war a jëfandikoo rek surtout de mesures barrières bu nga xam ne tey dinañ sauver année bi sauver élèves yi da daan ko jël. yaakaar naa ne euh, bu ñu ko xaymaa tey toll na ci 3 millions 500 boo xam ne bii tey dañu def euh, dañ ko génne woon ci suñu commune pour jagleel ko tey école yi da yàq li njéego bi njëkk a def mooy dañu désinfecté école yi am bi ñu ko defee ba pare bi ñu désinfecté école yi ba pare.

ñu ñu toog jàmbat ko saytu ko dafa teg teg lépp jox leen ko